ñëwaat rek tey seen émission Dak Sport Dak Sport nak tay mu consacré ko ay une légende du football sénégalais du football local marqué les nawetaan muy Mbaye Sylvain ñu wara a nak tay tey li jëm ci suñu équipe locale bi nga xam tay tey mi ngi évoluer en coupe africaine muy le Jaraaf mo war a waxtaan tamit li jëm tan ci championnat local bi bala ñuy dem tout rek dañuy nuyu tay suñu invité bi du jour muy euh, Mbaye Sylvain Mbaye Dak Médina mu ngi lay nuyu waaw mang ngi fay as di wax asalaamaaleykum Wa Dak Medina. ak waa Gueule Tapée yëpp bon maa ngi nuyu ñëpp vraiment euh, eh, di am contentement trop si interview Wow, waaw vraiment di nuyu wa Gueule Tapée vraiment di leen jox seen Wow. waaw. mbay bala ñu dugg ci vif du sujet hein parce que sank maa ngi rappelé ni ce tour moy Mamadou Mamadou Lamine Ndiaye mais Mbaye Sylvain lan lay lan lay woy su ma Mbaye Sylvain sax xamna les férus du foot local ñi nga xam ne y a 10 ans 15 ans né mais ki fan la nekkoon mais turu Mbaye Sylvain bi mën nga ñu may tout rek ci lan moko indi. ko indi bon Mbaye man produit produit Mboti Pom la judo, fi la yaro donc euh, ñom ñoo ma ko tuddee mën naa wax moy euh, Sylvain Koumé bi daan jouer Jaraaf étudiant bi daan jouer ak ñom Léopold Diop Jaraaf donc euh, mom lañ ma tuddee mooy surnom bi waaw mais le vrai nom Lamine Ndiaye donc ñi ma ko tuddee e, grand yi nekkoon fii e, e, Gueule Tapée ñoom grand dollar dem si yàlla nous gaañu grand Badou Badou sambe, ñooñu ñoo ma ko vraiment waaw. mais da ngeen amoon ay football wala dara lan la won dal waaw bima ma xalé nak bon en fait nekk ci école de footballu Cumbay Cumbay moom ku ko xam xamné ne bon mom légende le Mbëti Pom bon nekkoon ci école de football am bon parce que souvent euh, milieu terrain du jeu attaquant donc bon moment là xalé donc ñu tudé moko waaw lool nous ñu tudé ma surnom Mbaye Sylvain. kon wa Nous Mbaye Sylvain bi mi ngi non tous moko indi na nañ si bokku ñëpp hein mais mbay ñuy dugg rek ma ci jëm championnat bi li jëm ci giraffe dañuy indi nga jaar jaraaf nga jaar Gorée def foot def nawetaan mun ngi si jaar jàndaak tamit mun nga si ñëwaat tuuti sa passage su football waaw sama passage su football sénégalais bon nawetaan yi cadet Mboti Pom laa ko defee donc joué une année aussi à Penc. Penc moom mooy rivalu Mboti Pom ku xam Mboti Pom xam ne eh Penc mooy rivalam joué naa fa une année bon mais ñëw ñëw Mboti Pom. bon après il laa continuer dem jouer ji Gorée Gorée faut faire une petite catégorie Je naa junior man ak ñoom Malick Daaf Pascal Gomis Mohamed ñoom euh, Morsar, Sarr xam nga bon bi ma Goré Gorée aussi dama dem Jaraaf Jaraaf bi ma fa demee fekk génération bu doy waar ñoom Mansour Ayanda ñoom Cheikh Sidiba ñoom Moussa Badiane Ali Ousmane dem ndem si Jean Mendy Lamine Sarr Ablaï Sanya. vraiment di leen ñaanal de passage yàlla jégal leen à leen àjjana donc bi ma jógee aussi en 92 dama dem dama dem Dia Dia moo fa aussi fekk na fa génération bu doy war aussi ñoom Alimal ñom Aliou Diallo Fari Faye Didier soyou xam nga bon ñom vraiment fekk na fa génération bu doy war waaw. instant yooyu la rivalité bi gënoon metti hein, entre Dia ak Jaraaf. waaw instant bobu c'est la rivalité bi gënoon metti mais man bon sama man euh, bi may joué Sénégal nek nek footballeur fi dama defoon sama bopp professionnel donc loolu motax ma jaar ci équipe yooyu yëpp ay goré Jaraaf ja waaw j'étais professionnel bi may bi may joué fii Sénégal waaw mais rivalité bi bobu la gënoon metti mais aussi bobu aussi euh, euh, violence bi am légui amul woon bobu le supporters yi gënoon bëgg football stade daan fess mais amul woon violence donc nit ñi dañ dan ñëw jouer vraiment ñaari équipe yi and sax ñibbi waaw jouer nañu ay Jaraaf ja yi nga xamné vraiment madame Abdou Diouf ñëw na présider ko mooy euh, solidarité partage Abdou Diouf ñëw donc. Nous fait gagné déjà 2 0 mais bobu nous gagné. ak joueurs yi vraiment xam <laughs> mais ñun équipe yi 91 ànd donc. Euh, tamit la bon final bobu c'est dommage ñu bari la mais Gorée 91 Gorée la ma parce que 90 91 Gorée l'a joué nous avons éliminé Giraffe moo éliminé quart de finale 1-0 de Victor Diagne waaw année stop si sa passage équipe nationale nous ngi signé à waaw passage de équipe nationale bon pratiquement bo les catégorie Sélection de sélection équipe nationale cadet 85 junior espoir équipe A bon ba Sénégal 92 ni ñi démé préparation bi en France et tout donc euh, Tunis 94 moo de l'équipe l'équipe équipe bu Bokande bi aussi mais après par la suite je voyage. at naan yóbbu Arabie Saoudite donc euh, ma voyage. waaw donc euh, passage baa ngi

final bu final bobu 18 ans la am match bobu yeggaliwu ma sax dama génn quoi waaw dama génn en deuxième mi-temps waaw vraiment bon saison bi stop ma ñëwaat Mbëti Pom mais Mbëti Pom c'est dommage jëluma fa coupe senior coupe cadet la fa jël coupe cadet ak euh, régional la fa jël cadet mais senior dem na jouer na final ñu gagné ma joué demi final ñu gagné ma donc passage nawetaan bi moo nekk noonu. nan nga daa dundee dëkk Mbëti Pom ah. Mhm mais daje penc également suñ xamee ne rivalité bi dafa metti dafa metti woon seen diggante ñaari équipe yi. waaw waaw bon rivaliser mettre na métti na trop mais nak, bon comme li ma la wax rek bu njëkk ba violence bi bariwul woon donc euh, bi ma joué nous ñu gagné Mbadi Pom final 2-1 si guddi gi ñëw naa fii mais amul a rien àndaat ak sama gaay yi sama xarit yi donc euh, vraiment mu nekk li nga xamné bon jamono yoyu stade bi si lay gëna bari nit par rapport ak légui waaw donc violence bi aussi amul woon de équipe yi dañ daan joué ba pare ànd ñibbi waaw donc loolu la quoi. Mhm. gis nga mbay Sylvain mu ñëwaat tam ci parcours am nawetaan ah, mu joué ci deux clubs rivales yi nga xam ne tey il faut faisait côte à côte également mu dem wax footballu démb kam da nga daa football fii da nga daa football mboti pom dem reere ji penc nga la football penc dem rivalité nous ben animosité hein ñu waral ñu a tout rek tamit ci tamit ak mais mbay phase hein le but du sujet ah. moi je suñu but football saison 2023 2024 bon mu deuxième am trois victoires ak trois euh, matchs nuls nan nga début de saison équipe équipe bi wax. waaw bon xanaa di nuyu di nuyu le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck de passage bon mu nekk nga un grand président di nuyu di nuyu aussi Youssou Dial, le vice président Mohamed. di nuyu staff technique bi vraiment Malik Daf, c'est mon ami on a joué ensemble ñoo joué de petite catégorie Gorée bon di nuyu de passage ak staffam donc donc ak Man, yëpp quoi vraiment ak supporters yeeg ñëpp et di rappeler rek que ne jaraaf je pense que ñun ñi ñëpp xam nañ équipe bu mag la waaw jaraaf équipe bu mag la donc et je pense que pour man et début championnat comme ni ko ñëpp xamee joué na yi nga il a 3 victoires ak 3 nuls donc boo xoolee cinquième journée la ko la raw un point Donc, le donc championnat bi fenn c'est jouable et et puis l'équipe, de bi nga parce que c'est le plan africain donc soutenir quoi? parce que tamit bon vraiment ce que j'ai vu vraiment ak Jaraaf vraiment a yi amuñu problème je pense que l'entraîneur, bi mi ngi def liggéeyam Malick Daaf mi ngi def donc supporter dañu coller derrière l'équipe c'est c'est une équipe de jouer la Coupe d'Afrique ba paraître aussi di jouer championnat di aussi championnat donc ce n'est pas facile. Est-ce que tamit c'est normal que Giraffe

yooyu yep Tay, nga xamné ne point yo xam équipe yo xamné tamit du du ma sans pour manquer le respect du gros calibre par rapport ak potentiel du Jaraaf par rapport ak recrutement du Jaraaf yaakaar nga tamit c'est normal tam ñu perte yenn point yi. wa bon championnat mom non la quoi championnat mom bon y a des hauts et des bas fay am ay période yo xamné équipe bi day nekk ci tempo bi am ay période yo xamné ne day wacc non lañuy jouer championnat championnat mëno débuter nekk ci tempo bi ba fin saison loolu c'est pas possible donc man je pense que giraffe fi mu tollu eh, man pour man c'est bon waaw c'est bon jour yi ñom ñoo war gëna gën taxawaat mentalement moralement xamné vraiment vraiment euh, championnat bi et eh, demagul fenn et eh, ñu ngi ci course bi six matchs lañ joué donc jour yi xamné Eh, bon affaire bi mi ngi seen kanam je pense parce que tamit défense bi hein, chaque fois su moné rek da nga ko fay fekki

et ñu xam ne dañu war défendre pour bañ a jël but loolu c'est important aussi et je pense que ak liggéey bi Malick di liggéey ak euh, vraiment staff bi ñoom ainsi de suite je pense que ça va marcher incha allah ak euh, fin ou saison bi résultat bi dina gën a feeñ waaw. yaakaaroon tamit leneen jël championnat bi ce sera un échec pour le girafe. Hein. ah d'autant plus que il y a deux ans on a été ñun ñëw Jaraaf moo jël coupe du Sénégal. Jaraaf ñaari Atiep, yëpp mooy jël deuxième te chaque fois il y a les moyens qui sont mis dedans mal duñ nekkul nag dañuy dañuy manque respect yeneen équipe mais chaque fois y a le y a le président qui met toujours les moyens. waaw non loolu moom am na. loolu moom quoi vraiment Jaraaf moom euh, club le bi nga bon ku ko xam eh, président bi day def vraiment day génn ay moyens jënd ñu jënd ay joueurs yu am qualité yu am valeur et eh, comme ni ma la ko rek le championnat bon demagul fenn 6 matchs lañ joué donc euh, Jaraf, moom à coup sûr ren dina xëccoo championnat bi dina xëccoo championnat dina xëccoo coupe parce que am na effectif bi. xëccoo championnat waxuñu ko de parce que tamit il y' a deux ans chaque année ñooy terminer deuxième hein. mais ren suñu jëlu championnat bi ndax lu nekk échec tamit si euh, euh, si si si non je ne pense pas je ne pense pas L'essentiel que moom mooy bañ def année blanche rek soit nga jël championnat wala nga jël coupe wala nga dem si demi-finale si si Champions Ligue bi waaye Coupe d'Afrique bi loolu c'est possible parce que tamit Jaraaf a na joueurs yi waaw je pense que dans eh, eh, liggéey bi euh, staff bi di Ligue, entraîneur yi di ko Ligue, je pense que dans l'avenir eh, dina gën a feeñ waaw donc man li may wax rek mooy supporters yi il faut que nous def ndànk euh, euh, aussi euh, joueurs yi joueurs yi championnat bi mi ngi doog débuter débuté te fenn donc premier match la ñu joué Ligue des Champions euh, Coupe d'Afrique bi championnat bi mars matchs lañ joué donc demagul fenn donc euh, je pense que fu mu ni nii Jaraaf mooy deuxième et championnat bi je pense que lim si woné gum et am nañu yaakaar ne dans l'avenir avenir euh, dina gëna woné pour li nga xamné dina dalal xelu nit ñi que ne mën na jël championnat bi inshallah critique yi bari na ah, si sa doomu ndey sa frère muy coach Malik Daf également tamit lan ngay wax ci lool waaw ah bon eh, c'est normal ah waaw bon c'est normal parce que tamit entraîneur mom euh, euh, euh, supporter mom euh l'équipe su équipe gagné mu mu mu équipe gagné critiqué Wa non la mel donc Malik il a l'expérience xam nga championnat plusieurs fois xam nga football football Sénégal donc expérience club na quoi donc et puis le Girafe eh, ñi les anciens joueurs yi confiance ci donc il y avait les Boy Bandi, les Sireja, nga Fall pas mal de xam Sidiba directeur sportif donc vraiment et eh, ñi ngi si donc et eh, sommes euh, je pense que dal, Inch'Allah, euh, fin fin ak saison bi résultat bi dina ou quoi euh, Sylvain hein, ancien international.

au coupe de la CAF bi li ma siy wax début bon mooy que peut-être que def nañ faut faux pas rek à à à Abidjan faux pas laa ko mën a dit parce que boo xoolee bii ñu jël reflété le match bi l'équipe a très bien joué mais quand même euh, dañu perdre waaw donc jouable na ba jouable na ba tey dese nañu pratiquement trois matchs de poule cinq euh, euh, ak ak trois matchs de retour donc ba c'est possible comme li la wax rek jaraaf yorna ay joueurs de valeur yi nga xamné war nañu wara mëna génn au moins premier tour ci Coupe d'Afrique bi te inshallah je pense que lolu dina nek mu koy aborder ak Akam USM Alger du équipe bundawa, ndaw ah, yàgg na am parcours africain nga yakar ban taxaway la jaraaf wala taxawé ci match bi. waaw match bobu mom eh c'est un match bi nga xamné ne obligatoirement il faut ñu gagner ko yalla nañ ko yalla défal parce que tamit bon comme yalla def na ñu dem suñu premier match Côte d'Ivoire faux pas ñu gagné ñu donc obligatoirement faut ñu jéem gagner à Dakar suñu deuxième match te je pense que loolu dina nek inshallah allah tamit bon xam nga tamit li nane un public chaque fois day chauffer équipe te tamit ñep xam na ni euh, stade maître Abdoulaye Wade fofu dafa xawa a sori conditions yi tamit logistique bi pour yegg fa metti na yaakaar nga tamit est-ce que Giraffe aura ce public bu nga xam ne tey moom moo koy poussé pour mu mun a euh, gagner USM d'Alger waaw je pense que l'ol dina am parce que ku xam jaraaf xam ne jaraaf équipe bu waxuma la Ndakaaru mais équipe bu Sénégal yëpp la waaw équipe bu Sénégal yëpp la et puis eh, je pense que aussi jaraaf bu tollee fii amatul GA la bokk amatul Gorée la bokk donc Sénégal lay représenté donc je pense que ñëpp nañ si jàpp dem stade Abdoulaye Wade pour soutenir jaraaf te incha je pense que jaraaf dina gagner match bi waaw incha waaw. li ñu cërale woon ci waxtu jeex vraiment mon wax mon doon bu neex jaar ci parcours un un bon ko xamni un géant du football marqué foot local bi euh, marqué foot euh, euh, nawetaan bi mbay lan ngay tejje rek diko wax tamit supporteurs yi Jaraaf ak tamit waa Gueule Tapée waaw li may tëjee rek mooy vraiment di remercier d'abord waa Dak medina di leen remercier di ñaan yàlla chaîne bi yàlla def si jàmm ba ngeen dem fu sore sori waaw di vraiment Gueule Tapée moom sama fief la fii laa judo, fii laa màggee di ñaanal waa Gueule Tapée rek xanaa ñu am gudd fan ak wér waaw vraiment surtout waa Grand Place bi waaw waaw vraiment di di di di ñaax supporteru jaraaf yi di leen wax ne eh, jaraaf moom ku ko xam vraiment ñun bi ñuy joué jaraaf supporter dañ nekkoon derrière l'équipe dañu daan mëne sax ñuy encouragé ba ñu égaliser ba gagné donc di insister pour supporter, yi et eh, collé wu seen derrière seen équipe jàppale leen et puis supporter seen équipe et puis je pense que buñ ko défé yalla nañu may ndam loolu lay tejé vraiment content na trop et merci beaucoup. waaw ah, di gërëm yow it ah, si sa ouverture d'esprit esprit également tam bi ñu bi la wowe nag ñu amul ben problème malgré sax mi ñu leen fekk ci ben dëj di ñaanal tam ki fa jógee yàlla na ko yàlla xaare àjjana ah. di ñu di ñaanal tamit jaraafan yalla may leen ndama mais bala bobu tamit ndam tam pour am ko tam y a les conditions qui seront réunies

teg jaraaf dans les meilleures conditions coach Malik Daaf tam ñu ngi koy jox un coucou également tamit ak tout son staff ak tous les joueurs di gërëm toute l'équipe de Dak Medina, particulièrement Mbacke bi nga xam ne tey moom moo coordonné émission bi vraiment jóg ci taxaw si Malick l'infatigable moom tamit nekk ci caméra bi le directeur vraiment tamit ñu koy ñaanal yàlla gën a yokk wér-gi-yarama di gërëm mbay di la gërëmaat di gërëm waa Gueule Tapée ak waa Grand Place bi tam dalal bi ñu dalal di leen joxe dig daje beneen yoon ci émission Dak Sport jërë ngeen jëf